mel ne sax lii occasion la ci man ndax damaa xëyoon dikk di seeti Serigne Sidi ndax Serigne Sidi dafay sama wëllëre bu yàgg ñu ko xam depuis mille cent cinquante cinq ñoo ngi ànd sama digg ak Sëñ Abdou Lahad sax ndax moom waxoon ne damaa bëgg nga ñëw ci kër gi xam ne Serigne bii moo ko Sëñ Fallou ñoo yem ci yow te koo xam ne xaritoo na man ni nga xaritoo moom amul amuloo ko feneen kon nag ma bëgg nga ñëw jàppale ma ci bu fi nekkee nga nekk fi suma ma fi moo ko suñu bokkee nekkit gën baax ba loolu moo sabab sama digg sëñ bi mel nag ñu bari sax boole ci loo xam ne dama ko bëgg a leeral ñu bari dañuy wax maa moom ku mag di ko waxtaane ci grand place yi di ko wax fu ne bëgg ñëpp xam ne nag ba ma ko xamee ba léegi mag laa ko def mooy sama mag nuy ànd xëy na may na ma ci boppam sax loo xam ne moo tax ñu bari defe ni ma ma ma maa mag wala ñu di ñu tëkkale waaye mooy sama mag ñu blaat nag moom jëmm la joo xam ne ju yomb waxtaane la ndax nit la koo xam ne kii ku ne fàng la daana wax ne bu ma juumee ñu bari juum keroog discours yi mu njëkk a def bi mu toogee fii loolu la ci jëkk a wax noonu it la doxee ñëpp daana toog ba guddi ñu ne ñëw ruuyu ko daana toog ba guddi moom ci boppam mu ànd ak jëmmam ñëw fëgg ma toog ak man ci mbir mu muy laaj te xam naa ni noonu mu ma ko defee da koy defee ñeneen moom ku yomb àndal la nag mm. waaye ku jafe àndal la mm. ndax nit ku dëggu mm. mooy lu mu bëgg hmm. nit ku ñàkk fulla it waxu ci dara hmm. dafa bëgg li nga koy wax doon dëgg hmm. te li nga koy wax di loo xam ne lii lu mu ko seet seet du gis lu dul loola loolu doxe nit lan doon dox bari na lu ma daan wax loo xam ne lii sax ñemewuma ko wax ak foo xam ne àggale woon na ma fa ci boppam foo xam ne sax dafa jàpp ne ëppoon na ci sama digg ak moom waaye lu ci neen moom ma ko may te mosu koo nangu daana ma dénkit ndax daa dox ba sës ci mbir mu ne ma nangam lu ci sa xalaat mu wax ko ko mu ne ah sëñ naam day nit ñi boo leen toppee li la war doo ci def dara ndax lu la war lu am nga lay wu ci génne te boo def loo am lay wu ci génne génn ci kër loo fi yàgg yàgg doo fi def dara te nefit bay jógee fi defoo fi dara it dara jaru ko loolu daana ko wax ku xamoon àddina la nag boo masaa ñëw wax ko dara boo daanee lee mu ne ah wenn lay daal pàq la mm-hmm. naqarim xel daal yëgut ci waxi lay yow dong te yeeyu nit <laughs> nag bañ si ka ca des yu mel noonu daa doxe ci lépp mm-hmm. ku baax ku amuk taalibi ku bëgg sëñ Tuubaa mm-hmm. ku xam ne kii wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa rek ku mën am doom ju mel ne na loolu rek laa xam ci moom muy ngeen ko xamee ma ko nii rek wax naan man du ma yëlifantu du ma jélloo du ma du ma dox guddi loolu lépp xeeti doon doon lu la mm-hmm. loolu daana ko daana ko wax te di di ko tere it ku mu jaxasool ko mm-hmm. du yilifantu daal mm-hmm. dama yilif bu wér mbaama ba duma ma defantu it diggante def ak bàyyi it awma fi fu may taxaw moom euh, damay def wala ma bàyyi mas na ma ne waaye suñ daam boo yoroon ñetti junni ñetti nit ñëw ki dis la soxla ñetti jooni ki dis la soxla ñaar ki dis la dis la soxla ben moy def mané ko xana ah, xanaa séddale leen ko ma kon nga yaq ko ndax kenn ci fa juut sétal ka nga fa ci soxla am rek nga jox ko ko ñe ca toog di nekk yoy dal la dan doxe ci lu mu kenn mënu ko sërfal ba nga fexel ko it ba mu àntu waxit nan ko defé né yaama mom ku defee ne yaa moom danga la xel seen ngaa làmb sa sa poste doo dara. yu bari da ko daan diisoo. waaw ah, di ko waxtaanee ak koo defee ne sax waru caa woon a wax ak moom. waaye xeebul xelum kenn. waaw daana wax nag nit ñi de da ci am ñoo xam ne buñ la waxee dara. donte la lu baax la it dañ lay taxawu ci nga def ko. Mm-hmm. waaye nag yow li tax ma mën a dégg yow mooy ba mu waxee da ngay may wax rek bàyyi ma ak sama bopp. Mm-hmm. loolu nag laa bëgg. loolu bañu ci woon dara. Mm-hmm. ndax man maa ko jëkk a tudd. ndax fekk naa bis boo xam ne bii dañuy doxantu mu ne ci sama oto. Mm-hmm. ma di ko kondi dun ñaar doo nga ci ne. ñu romb ci rond point bi. fekk fi booba civil yi rek fi ne ay dongo. mu su na ñu dox tuuti mu ne sëñ daam lii moom noo ko gisee ma ne ko lii de sëñ bi ak njëlbeen la waaye du mën a sotti ndax siwil mënut a yor moroom moom daal ay gendarme mbaa ay alkaati ñoom ñoo fi mën a ne mu dañ ku tuuti tuuti mu dóor ma da doxantu ba yàqoo yi mu ne ma ne ñu wàññi ko ñu wàññi dikk waaye keroog affaire ba amee nga xam ne waa ji dikk na sëñ bu xaadir bëgg koo def noonu mu doon def ba mu ba ma dikkee def ma ah seen daam de sa wax ja tey jii moom mm. defe naa ne danaa ko jëfandikoo ndax <laughs> am na ab dégg saay saay boo xam ne daal dégg naa dafa dem fa sëñ Abdou Khadir bëgg koo àpp def ko nii def ko na mel noonu mm. waaye du fàtte dara nag ci loo ko wax ci lu baax mm. lépp lu bon nag du ko dégg bi moom boo ko waxee bala ngaa daanaa mu ne ah nga di dem yoon waaw ci ma ci xam la bokk <laughs> tawarkar jërëjëf Mbacké Euh, liñ ci doon séenu am nañ ci lu kawe njor